ñu ngi taxawloo woon ci baatu maliki yawmi diin ci wàllu njàngin am na ñaari riwaaye yu ci am xëcc gi muy malik yawmi diin ci riwaayatu alkisaa'i wal aasim ñoom ñaar ñooy jàngee noonu comme ni ko saat bi waxee ne wa maliki yawmi diini rawihi naasirun wa inda siraatin wa siraata li qunbula maliki yawmi diin nag ñi des ci quraaw yi yëpp moom lañuy jàng ñom ñaar am na tuuti wuute aji moom ak kiñ wax ni mooy njiit di buur aji moom am na sañ-sañ calam moom def ca la ko soob boo lii sama tool la bi maanaa am nga sañ-sañ jiwu wu la neex nga ji ko fa ndax sab tool la waaye nag buñ ne kii lii buur bi moo ko yilif réewu réewu buur bi la bu boobaa sañ-sañu buur bi day gën a yaatu ni sañ-sañu nit ki ak lam moom ndax buur mën naa def ay tasarrufaat maanaam di soppandiku ci moomeefu doomu aadama yi waaye yow nag amoo sañ-sañu génn sa moomeef di soppandiku ci moomeefu ñeneen ña moo tax kon ñaari riwaay yépp benn bu ci nekk eh, ay boromi xam-xam yu wér njàng jànge nañ ko muy maaliki yawmi diin mooy aji moom bisu pénc ba foofu nag moomeel ga dafa mutlaq bi maanaam kenn amu fa kenn amu fa dara lépp mu ngi ci biir moomee fu borom kon xam nga ne loolu bay day yebaale nguur soo ne it maliki yawmi diin mooy buuru bis pénc ba bi maanaam lu ko neex la fay dogal kon ñaari maana yi dangay gis ne dajewaat nañ ci maana moomu ndax bis ba moo ko moom lu ko neex am na sañ-sañu dogal fa kenn amul sañ-sañu dogal fa lenn kon mooy buur ba it nafsu say baax na ñu laajte nag ci wàllu malik baat la boo xam ne dañ koy tuddee suñu borom maalik it turam waaye gis nañu euh, léegoo léeg kuñ fal cim réew ñu ne kii de mooy buuru réew mi Malik waaw ñu ne mooy buuru réew mi haza huwa malikul bilaadi ñu ne waaw ndax wér na ñu jël turu suñ borom woowu di ko jox doom aadama ñu ne waaw mayeen mayees na ko ndax suñ borom mooy seet mbindeef mu ko soob mu jox ko sañ-sañu nguur abal ko ko moo tax ci am na laaya buy wax ca suratu albaqara suratu al imran di wax ne qul illahumma malikal mulki al imran ñaar fukki laaya ak juróom benn moom moom nguur gis nga foofa loolu la fa saxal waaye ba mu paree nag daf ne tu'til mulka man mooy jox nguur kon ku ko soob bu la joxee nguur nag nit ñi mën nañ laa tuddee la ne la malik yow yaay buur bi loolu dara newu ci lii jara bàyyi xel foofu rek mooy nguur suñ borom dana ko jox ku gëm yàlla dana ko jox itam ku gëmul yàlla kon gis ngeen ku mel ni na suñ boroom joxoon na ko nguur ku mel ni Namrud ibnu Kanaan moom itam sunu boroom joxoon na ko nguur waaye gis nañ itam yonentu yàlla Suleymaan alayhi salaam mu yoroon nguur ak yeneeni buur yu bari yu jub ñoom Omar ibnu Abdul Aziz ba mu jeex ñu ne waaw bu boobaa yow jullit bi nooy ja nooy war a comporté woo diggante ñaari buur yooyu su fekkee ne yàlla dalaa nattu nga nekk ci seen ron ñu ne waaw bu dee buur bi nga xam ne dafa jub di jubal boobu diina moo la sant nga jàppale ko dimbale ko topp ko di déglu ay ndigalam di bàyyi ay teram feek la muy digle ak la muy tere ma ngi cay sàmm wanteeg ndiglay borom bi tabaraka wa taala ak tere tere borom bi tabaraka wa taala loolu jar a bàyyi xel la bu boo ñëpp ko war a jàppale ci mission bi nga xam ne moom la moom la yor am amma nag su fekkente ne buur ba dafa jeng ñu ne su boobaa nag sunu borom da koo defub nattu maanaam buur bu mel noonu am nattu la ca waa réew ma di seet ba xam mm, nu nuy jëflanteeg moom boobaa nag yonent yi joxe nañ yoon yëggan ci nu nuy jëflanteeg buur boo xam ne tegewul ci yoon kon gis nga yonent yàlla ibrahim alayhi salaatu wassalaam amoon na natt boobu waaye moom dafa ñëwoon ci buur bi woo ko jëmee ko ci ki ko cëral nguur muy borom bi tabaraka wa taala ay passage yu bari ñëw na ci alquran di nettali jar jar yooyu ba niñ koy jël di ko sànni ci sawara wa am na ci passage boo xam ne bu yéeme la sax mooy keroog ba ñuy dem di màggali seen yàlla ya mu wuutu leen e, jël seen yàlla ya e, tasar tasaree leen dagg daggate leen mhm. ba mu des yàlla ju mag ja mu bàyyi ko fa bi mu ñëwee mu ku laa ku def lii ku def lii ñu ne ah am na xale bu doon wax ci ñoom de ñu ne kon dem leen andi ko ci gàttal. loola Ibrahima alayhi salaam ba mu koy def defut ko woon pour tooñ déedéet moom ab yonentu la du tooñ waaye kon da ko doon def pour euh, jàngale xam le ne fii ñu teg nguur gi te mooy jaamu lu dul yàlla subhanahu wa di wéyal kàddu keneen ku dul borom bi tabaraka wa taala nekkul yoon wu yàlla gërëm nekkul yoon wu yàlla jub su boobaa kon eh, dañ ko war a eh, dindi dañoo war a cëb cëb cëb dañoo war a dindi nguur gu mel noonu buñ ko jubbantee mu bañ dañ ko war a dindi te itam kenn waru koo topp nag ci mooy yàlla moo tolloo nag sunu nguuri jamono yii tey alaa kulli yàlla nguur yi nga xam ne dañ koo tabax ci république ak laïcité te yëpp ñoo nguur yi euh, faraina ya ñoo yem loolu nag buñ koy wax dañ koy wax pour euh, wàccoo suñ diggante ak suñ borom subhanahu wa ndax la franc-maçonnerie mondiale li muy woote mooy dindi kàddu yàlla samp kàddu mbindeef kon euh, doomu aadama bu ko yàlla nattoo nguur yu mel noonu fam seen diggante nguur yooyu mooy topp leen ca la dëppoog topp yàlla lu ca dëppoog topp yàlla rek dañ ci ànd ak ñoom lu ca dëppoowul ak topp yàlla dañ dañ dañ dañ dañ leen cay opposé loolu la ñuy tuddee droit d'opposition sunu classe gi nag ñu bëri dañuy faral di wax rek ne a ah, ñun duñu contre buur duñu contre nguur ma ne kon yéen bokk leen ak yonent yi jaaruwaay salawaatullahi wa salaamu alayhim ajmain yi seen jaaruwaay ay buur lañ doon fekk ci jamono ñu daan doxal doxalin woo xam ne dafa ñu roog doxalinu sunu buuri tey yii dañ leen doon opposé lu leen dal ci loolu la leen dalee moo tax duñu contre nguur lépp lu nguur dañ cee wax dañ cee ànd loolu kàddu gu gu gu dëng la kàddu la goo xam ne ab borom xam-xam waru ko waxee noonu ndax ñi koy déglu yépp Euh, dañuy jàpp ne la mu wax comme ci xam-xam la sukkandiku di ko wax rek xam-xam la malheureusement su boobaa da ngay gis ne nu buur mën a mel ñu ànd ak moom nu nguur mën a mel ñu ànd ci ak moom loolu déedéet benn diina jàngale ko ba ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam buur yi mu fekkoon màkka daf leen opposé woon lu ko dal ak lu dal saxaaba yi ci loolu la ko dalee gis nga yonent yàlla ibrahima itam diggante mag namrus alam tara illa lasi xaaja ibrahim fi rabbihi an aataahu llahu l mulk yent yàlla ibrahima dee doxal la muy doxal buur ba dafa ñëw ba ko imposer la muy doxal daggasanteeg moom daggasante waa nga ba mu gis suratul baqara ba yent yàlla mujj ko wede loo ci euh, li lay xamal ne doo buur yow buur jant bi mu ngi fenkee fii ci penku bi di sooyee fële ca sow ba bu fekkee ne ne yaay buur jëleel jant bi fi muy fenkee di ko di ko soolee fële su fekkee ne mënoo loolu nag nga xam ne kon kii def loolu mooy sa mooy sa kilifa kon daal nguur nattu la boo xam ne dañu ko nattoo ñun ndax dañuy ànd ci lépp lu ñuy def su boobaa jéng nañu wala boog fuñ jéngee ñu taxaw ne leen ah fii day ni ngeen fii doxalee du nii code de la famille bii day ni ngeen fii doxalee du nii code constitutionnel bii day ni ngeen ciy doxalee du nii loolu mooy suñu wareef suñu digganteeg ñoom ndax nguur gi genn la yàlla ko moom day cëral doomu aadama yi nag la ko ca soob baax na kon loolu lañ doon wax ci maliki mi diin moom buur boobu nag nga xam ne mooy buur keroog bisu pay ba foofa nag lu tax ñu ñu ñu askanee ko ko te na nanguwuñ ko askane nguur yi àdduna yi ñu ne waa yi àdduna yi da ko da ko séddale teg ko ci ay loxo te na muy doxee maanaam na ko buur yooyu doxale mën naa waroog moom na mu bëggee moo tax fii nguur mu wëccee ko doomu aadama yi bu jullit góor góorgóorloo ba tabax ko cim njub alhamdulilahi rabbil alamin bu ñu sàgganee itam ba ñeneen tabax ko ci ndëng ah ñoom la ñeel cër bi mu leen cërale fii nag àggul yowmal qiyaama looloo tax mu ne maliki yawmi diin fii mooy mooy buur dëgg waaye nag xëccoowul ak kenn nguur gi moo tax ñu bëri dañ fi gis ay yéefar yor kàddu doxal leen neex fee nag loolu amu fa fee moom day dindi nguur ci loxo yépp ngar daajoo ko am na sax fu muy laajtee ci suratu Gaafir keroog bis penc dana taxaw ne waaw ana buur ya li manil mulkul yawma tey ku moom nguur kenn du wax sunu buur yi yépp danañ fa nekk teew fa waaye kenn du wax de bu kenn tontuwul nag mu tontu ne lillahi alwahidi alqahar loolu mooy maliki yawmi diin ah, yow mu nag bis bi baatu bis yawmu diin bisu pay ba ñun de fii liñ ci xam ci bis jamono ko gaw jamono moo ko gaw fare ko ca xarfu ba faree ko ca penku ba ndeyjoor ba càmmooy ga ñu xam ne tey bis bi mu ngi commencé par exemple ci secteur war a jeex sept heures quart ah yow mu diin moom kon noonu la ñu ne déedéet nag yàlla bu waxee yow ak ñun ñu wax yow mu bokk ndax suñ borom subhanahu wa jamono peegut ko bërëb peegut ko mhm. moo tax am na ci suura suura bu ñuy tuddee suuratul xaj lay 47 suñ borom dana fay wax ne wa inna yawman inda rabbika bisa nga ca bis ya fa sa borom bisa nga ca bis ya fa sa borom ka alfi sanatin mimma tauddu boo ko doon compte dana mat junni at ci ñun li ñuy tuddee fii at beneen yoon it ñu gis ci suuratul euh, maarij suñ borom di fa wax ne taaruju almalaikatu warruuxu ilayhi fi yawm kaana miqdaaruhu xamsiina alfa sana saar wu ñu tuddee suuratul maarij foofu nee na bis la boo xam ne buñ ko doon compte ci suñu bis yi mat na juróom fukki junni at ah, moo tax dañ naan kon nga ca bis mat na junni at ci nga ca bis mat na juróomi juróom fukki junni at ci suñu bis yi Mhm. mu ngoog bis boobu nag kon nga xam ne mat na juróom fukki junniy at mooy mil yooyu at waaw bis ba mat na ko ñu ne waaw loolu yëpp ay xeeti bis la yoo xam ne suñ borom amal na ko ñun suñu bis bi fii lu muy lu muy lu muy quatre heures ci la jant bi feeñ weer wi feeñ ci ci diiru vingt quatre heures yi ndax dëkku ñoo ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ñoo ñu ngeeg ñoom fii ci àdduna ci seen bis demeewul noonu ah kay moo tax bis du ko compter rek yow ci mantiqa maanaam gox bi nga fare woo ndax amul euh, ndax am na laa bëgg laaj ndax am na benn moment boo xam ne nekkul ne jant baa ngi feeñ ndax loolu am na déedéet moment bu nekk jant baa ngi feeñ ndax am na benn moment boo xam ne weer wi nekkul di feeñ déedéet amut moment bu nekk weer waa ngi feeñ maanaam moment buñ ko waxee maanaam moo tolloog jendiku bu nekk jendiku bu nekk waxtu wu nekk rek weer waa ngi ne dàng mu làqu la nag mbaa mu feeñu la moo fi nekk waaye waxtu wu nekk itam jant baa ngi ne dàng mu làqu la kay moo fi ne et mbaa mu feeñu la mhm. bu ko defee kon biir ba ngeen baal ma bis dafa nekk loo xam ne lu proportionnel la am na ñu ñu daan bind nekkoon ay mustasriquuna daan wax ne yàlla daal moo bëri ay contradiction ndax moom léegoo léegi mu wax bis mu nekk 24 heures léegoo léegi wax bis mu nekk junniy at léegoo léegi mu wax bis mu nekk euh, juróom fukki junni at lu ci am yépp am yépp am Euh, ci pôle yi am na ci lu ñuy tuddee pôle nord ñoom seen équinoxe de mars et septembre maanaam li ñuy tuddee al i'tidaalu rabii nga xam ne mu ngi commencé euh, mois de mars ba mois de septembre diire boobu yëpp du ñu gis jant te ndax am boo demee ci pôle sud bi ñoom diire boobu yëpp ñoom jant bi mu ngi mu ngi leen di feeñu rek bi maanaa ñoom seen bëccëg diir na juróom benn weer ñee nekk ci pôle ba ca des seen bëccëg diir na ñaata weer ñoom itam juróom benn weer bu ñee paree ci seen juróom benn weer ñoom ñu jëlaat seen guddi bu ñuy paree ci seen guddi ñu la jëlaat seen bëccëg kon ñoom seen seen bis lan la du at te ñu ngi dund ak ñoom fii ci àdduna moo tax yàlla buy wax yow dangay dangay am yar bu toll ni xam ne kiy wax ak yow moom xam-xamam dafa làmbee lépp yow mi ñuy waxal nag dangay tuuti lool xam-xam da ngaa limité xam-xam lu tuuti la bu ko defee kon loo ca xamul danga naan man maa ko xamut waaye noonu la mbir mi deme kon maliki yow mi diin yow mu boobu bokkal ak suñ bis bii bis yi foofa suñ borom rek ka xam nam toll borom bi nag tabaraka wa taala di ñu xamal ne bis booba di bisu pay ba euh, nan koy fuuglu di ko dund bisub xéewal la waxoon nañ ci lu bari démb moo tax tey duñ ci waxaat euh, lu yaatu nan koy dund di ko fuuglu ndax mooy defar sunu àdduna defar sunu àllaaxira dayoon na sëkk rek nit ñi gëm yowmal qiyaama te mooy gëm ne loo fi def da dana danañ ko lijjantiwaat loo fi wax danañ ko waat noo fi jëflantee danañ ko toppatoowaat àdduna yi day daal di defar ko loolu mën nañ ci jël sa benn waay boo xam ne dafa wumpule woon boppam ñëw ci benn nitu yàlla benn benn saalix nit ku baax ne ko man de damaa ñëwoon pour nga xoolal ma samay mbir ba xam daal man fu mu bokk ndax maa ngi ci gaa yu baax yi wala boobu maa ngi ca ñi ci des waa ji nag di ku baax ndeysaan ne ko inna allaha tabaraka wa taala arxamu bi ibaadihi falam yaj'al mawazinahum fi aydi amthalihim suñ borom yërmandeem dafa yaatu jëlul seen mbir yéen jaam ñi teg ko ci seen loxoy jaam moromi jaam comme yéen maanaam jëlu sunu mbir ñun jaam yi teg ko ci loxol ay jaam comme ñun nga xam ne dañuy ñëw ñu naan ñu nii laa gune nee déedéet mu tegal ko ci nag ne ko fa miizaanu kulli insaanin fi yadi nafsi balance bi nuy peesee nit ku ne yàlla nga ko teg ci loxol waaju ne kenn mënut laa waxal yow fii nga jëm wala fee nga jëm yow nag xam nga sa bopp man mii xam naa sama bopp kenn ku ne xam na boppam Euh, ñu ngi nekkoon rek ci bëgg a wane euh, dund bis penc nu muy defaree àdduna ak àllaaxira moo tax ñu indi xisaab waa ji mu ne ko mën ngaa war koo bëgg a war de ci doomu aadama yi waaye mënoo war sa bopp nag ndax nit moom saa yoo xamee ne ma ngay def lu baax ci biir xolam ma ngay yëg ne mu ngi def lu baax waaye saa yuy def safaanu baax la koy yedd da nga koy yedd ci biir xolam hmm. nit mënta war boppam mënta war boppam saa yuy def safaanu baax conscience ba mag naan ko ah lii ngay def de baaxul bu dee wax la mu naan ko ah lii ngay wax nii day baaxul bu dee jëflante la it ma ngi koy yedd mu ne ko nag léegi yow li nga wax ne nit ku nekk mën naa peese boppam ba xam fu mu jëm dama bëgg nga jox ma ci misaal mu gën a leer mu ne ko dama la ci jox misaal ki ñaari gaay yu xëy gana si la ñëw ci yow kii dafa ñëw yëkkati tuut jox la maanaam yëkkati junni wala ñaari junni jox la wala sax lu ëpp loolu toog laata muy jóg keneen ñëw déew la ne ah man de damaa wut si woon dépense laa bàyyiwul ca kër mu ne ko ñaari gan ñooñu ñëwal la ci suba gi ku la ci gënal waa ji xaw a yéex a tontu mu ne ko bàyyil ma tontu la bu fekkee ne ki la indil ñaari junni yi aw yoonam moo la gënal yow di àdduna dong nga boobaa noonu ngay peesee sa bopp ndax kii ñëw indil la ñaari junni yi nit la comme yow moom dafa xëy ne naa gedd ñaari junni bii pour jiital ko ci sama àllaaxira joxe joxe maanaam dafa xëy di joxe yàlla nattoo la keneen ku ñëw ne la yow jox ma ci la waa ji jox pour jiital ko ci sa àllaaxira nga nga ñoom ñaar ñëpp a kii ñëw na joxe waa ji ñëw jox ma ci liñ la jox te ki la jox àllaaxira lay jiitalal yow nanguwoo koo jox ndax àdduna jii moo la gën a yitteel mu ne ko del peese sa bopp nii moo tax gis nga gëm àllaaxira bu fekkoon ne def nañ ko noonu boroom ñaari junni bi def noonu la jullit ñi di def boo amoon lu dul benn mbàttub tàndarma sax da nga ci mën a yëkkati ñett doomi tàndarma joxe la ca des nga yóbbu ci kër ga day day day yombal dundub àdduna waa ki dem bay am ñaar mbàttub tàndarma ne dama ciy yëkkati jox ñi ci des kooku dana lor ñi ci des déedéet àdduna day day day jubee ci moom day baaxee ci moom waaye du loroo ci moom moo tax bi waa ji noppee mu ne ko seetal ñaar ñi rek ku la ci gënal bu fekkente ne ki la joxal a gënal xamal ne yow àdduna doo nga la yitteel mhm. fekkee nag ci laaj si yow itam gërëm nga ko ba daanaka ngërëm la ko gërëm toll na ni li nga gërëm ci la jox waaw kay su boobaa ah, àllaaxira yitteel na la sa diina yitteel na la mu bu ko defee kon daal ci gàttal yow mi diin dañuy wax ne <clears throat> ab dund la boo xam ne nit ki daf ko war di dund muy àllaaxira ju muy dund fii ci àddunaam nga xam ne dundam yépp day tekki ne kii de ma ngay am na lu muy waajal di julli di ko denc pour yowmal qiyaama di woor di denc tiyaaba ja pour yowmal qiyaama di dimbale gaa yu baax yi di dimbale ak way jàkk néew doole yi pour lan denc ko pour yowmal qiyaama ba mu jeex di tasaare xam-xam di xaar pay ga yowmal qiyaama ñu ne nag ci maaliki yowmi diin liñ koy tëjee mooy kii dundu bis penc di ko dund fii ci àllaaxira suñ borom da koy jox wërsëg wu ñuy tuddee ar ruyatul imaniyatu xam naa ar ruyatul imaniyatu boobu mooy bëtub bëtub ngëm yàlla gis-gisub ngëm yàlla gis-gis buñ aj ci ngëm yàlla subhanahu wa taala askane ko ca bët boobu moo gën a foor fuuf bët bii di bëtub saahir si ndax kee bët ba muy xoolee bëtub xam-xam la bëtub ngëm yàlla la et bëtub diina la moom lay xoolee mbir yi yonent bi alayhi salaatu salaam junj na ruya imaaniya boobu ci keroog bi jibril ñëwee di ko laaj ba laaj ko benn baat bu ñuy tuddee al mu ne ko an taabud allaha ka annaka taraaha xam nga yàlla xaybu la ci ñun doo doonul jëmm jooy teg bët waaye nee na na nga dund ak moom ci ni nga koy jaamoo ba mel ni yaa ngi ko teg sa bët ka annaka taraaha jullit noonu lay dundee mbir yi fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak mu nga ko ñu ne kon su boobaa bépp question bépp mbir booy dundati ci àdduna séq ko nit kum mën a doon doonte bi yéefar la doonte bi yéefar la waaw ki ngay jëflanteel doonte bi yéefar la moo xam nag ci domaine booy mën di jëflanteek moom ca njaay ma la ca location ba la ca tayle ga la ca lu mën a doon rek ngay jëflanteek moom dootoo xool ne kii may jëflanteel jullit la wala yéefar la déedéet yow xoolatoo jëmm ji kii kan ngay jëflanteel allah subhanahu wa taala ndax da xam ne ni may jëflanteeg moom la ma sama borom di fayee loolu la ñuy tuddee ihsaan mufassir bi tuddee ko fii tey ar ruyatul imaniya mooy bët bi nga xam ne liimaan a koy jox doomu aadama bi yo yóbbu ko mu dem bay dund ihsaan maanaam bay dundee noonu ak boromam subhanahu wa bët boobu gis nañu benn saxaabi yu bu ko doon dund xëy ñëw gane si yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu ko nuyoo ah, mu ngi tudd alxaaris mu ne ko kay faas baxta yaa xaaris xaaris noo xëyee tey xaaris ne ko asbaxtu muminan xaqan tey day alhamdulillah damaa xëy nekk aji gëm yàlla dëgg ci réalité ba mhm. mu ngoog ah yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko xaaris fanzur ma taqul xoolal li ngay wax fa inna li kulli qawlin xaqiqa fa ma xaqiqatu imanik wax bu waay wax rek am na zahir suy feeñ ci wax bi mooy la ñuy dégg waaye am na benn réalité bu ànd ak wax bi kon wax boo wax am na zahir am na benn réalité bu nekk ci biir xaqiqa moo tax dund dund xaqiqa lu am solo la nañ nañ déglu kii doon dund xaqiqa moo ne daf ne asbaxtu muminan xaqa yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko xoolaatal li ngay wax fa inna li kulli qawlin xaqiqa fa ma xaqiqatu imanika lan mooy ngëm googu ngay woote ne àgg nga ci xaqan ja luy xaqiqa bi xaaris na ko waa sama bakkan day bi ma xëyee yëg naa ne àdduna mii moom wan na ko gannaaw du du mooyu na ko waaw sama bakkan moom yëg naa ne àdduna mii moom amatu ci place sama lépp ci àllaaxira laa ko bàyyi xel gis nga ko da doon dund yow mi diin maliki yow mi diin mu dem sax ba ne ko samay guddi sax dama koy foog as xartu layli samay guddi dama koy foog foog mooy lu ci bëri duma ko nelaw wa azmatu nahaari samay bëccëg sax lu ca bëri dama koy mar bi maanaa dama koy woor guddi yi yëpp nelawatuma ko mu jeex damay jóg di jàmm sama borom bis yi dama cay tànn ay bis yoo xam ne dama koy woor lekkatuma yépp waaw mu ne ko nii lay dundee sama diggante sama wa ka anni anzuru ila arshi rabbi barizan dafa mel ni fu ma toog dama jàkkaarloog arasu sama borom mu di ma feeñu waxut ne maa ngi koy gis waaye dafa ne dafa mel ni noonu lay dundee garas wa ka anni anzuru ila ahli aljannati yatara yatarauuna fiha dafa mel ni maa ngi jàkkaarloo waa aljanna di leen xool nañuy dundee ñoomu neen di gisante di xoolante di jàkkaarloo dafa mel ni maa ngi dund ci biir aljanna di dund ak dund xam nga foofu nit ñi dañuy xoolante dañuy gisante ñëpp ay jàkkaarloo mutaqaabiliina waaw ñëpp ay jàkkaarloo loolu la benn eh, doxalit la woo xam ne suñ borom noonu la doxalee nekkinu àllaaxira ya kër gi lu mu réy réy warante xar kanam mu ne ko dafa mel ni maa ngay dund foofa wa ka anni anzuru ila ahli naari yatadaagawna fiha waaye itam dafa mel ni maa ngi dund ba jàkkaarloog sawara ak ña fa dugg di yuuxu di xaacu mu mel ni maa ngi jàkkaarloog ñoom yonent bi alayhi salaatu yaa xaaris arafta falzam maarifa loolu mooy maarifa mu ne ko yaa xaaris am nga maarifa taqool ak loolu kon gis nga fi gis nga fi baatu bu arafta gis nga fi xaqiqa mhm. maarifa dëgg mooy di dund nii kii doon dundee waaye mbas maarifa moo xam ne day ñëw yóbbee la ñeme yàlla yal nañu yàlla musal ci googu maarifa waaye mbas maarifa goo xam ne day ñëw yóbbee lam po tëgg ak fecci xam nga ne kii day xal talutoon loola waaye yal nañu yàlla musal ci mbas moom yi nga xam ne mooy maarifa goo xam ne borom euh, tëgg ak fecc la ko yóbbee akum po ak ñeme yàlla ak mooy yàlla mbas moomu la moomu la maarifa moo tax am na loo xam ne seytaane moo ci nax nit maarifa kenn du ko dundee noonu koy dundee xaqiqa kenn du ko dundee noonu xaqiqa nii lees koy dundee allahu akbar a kon gëm àllaaxira gi nekkoon ci xaaris mooy yóbbee nit ki muy dundee nii eh, yawmu diin maliki yawmi diin ci yal nañu yàlla may ñu dundee noonu maliki mi diin dundee noonu ak sunu sunu borom boobu di bàyyee nii xel daje ba nga xam ne mu ngi ñuy xaar suñu diggante ak moom ñu ñëw ci laaya bi ci tegee muy iyaaka naabudu wa iyaaka nastain bu ngeen xoolee sunu borom fa mu commencé ca alhamdulillahi rabbil alamin foofu da nga doon sant sa borom waaye dafa mel ni newu fi xam nga boo ne maa ngi sant diw sàngam cant ñeel na demba dafa mel ni demba newu fi nga ne demba may borom ma ja demba jàkkaarloowuloog moom moment yooyu demba mu baax ma jàkkaarloowuloog moom jamono yooya demba buur ba jàkkaarloowuloog moom jamono yooyu melokaan yooyu nag ngay wax ci moom dafa xëy xëy mat ci sa kanam sëkk mu mel ni da ngaa ci ñàkk a jàkkaarloo ñëw directement ci jàkkaarloo ak sa borom jógee ci alhamdulillahi rabbil alamin di sant sa borom arrahmani rahim di bakk sa borom mu mel ni newu fi fa ant fi gaybin mu nga anhu maliki yawmi ddin di bàkk di di di tedd gaal sa borom waaye dafa mel ni yow yaa jàkkaarloo guloog moom foofu nag la mbir ci sa kanam sëkk nga ñëw ci martabatul ubudiyati lillahi rabbil alamin ne ko nag iyaaka yow dong fi mu ne newootee moom léegi yow nga wax yow dong naabudu la lañuy jaamu ci def say ndigle bàyyi say tere baat bi nag faawuñu yàgg ci ndax waxin wi moo moo moo doy waar moo diis waxin wi dafa am boo demee di jàng làngi làmmiñu arab ba jàng naxwu ba naxwu mooy grammaire bi nga jàng la ñuy tuddee balaaga ba balaaga mooy rhétorique bi rhétorique moo lay xamal wax bu nekk poids bi mu am degré bi mu am foofu danaan la boo jëlee bi bihi comme iyaaka maful bihi bi mooy participe passé bi et complément d'objet direct bi ngeen baal ba iyaaka ji complément d'objet direct bi nga jël ko jiital ko te moo waroon mujj ci wax bi nga ne iyaaka yow rek xam nga li fi nekkoon mooy la nit mi noonu ka noo ngi lay jaamu ka mujj di complément d'objet direct bi tey nag nga jël ka googu di maful mi daal di koy jiital jox ko tëggug iyaaka yow rekk la yaay joxe te ndigal ñuy wéyal ngay joxe tere ñuy bàyyi yow rekk yow rekk ah wax de yomb na ñun nag dañ koy wax wax dëgg yàlla di ko wax ay yoon yu bari lu mu tuuti tuuti fukki yoon ak juróom-ñaar wax bi di ko wax rekk iyaaka na'budu yow dong la ñuy jaamu ci lépp loo digle ñu def ko lépp loo tere ñu ba ko ah. waaw taalibe bi bu xëyee dana ko wax buy julli sëriñ bi bu xëyee dana ko wax buy julli baykat bi bu xëyee dana ko wax buy julli sàmmkat bi ak commerçant bi ak borom métier bi ñoom ñëpp danañ ko wax waaye gouverneur yi da koy wax ak préfet ak maire ak ministre ak président de la république ñoom it kat ku ci xëy danaan iyaaka yow dong bu du lañuy jaamu ci def lépp loo digle bàyyi lépp loo tere ma ne mbokk yi nañ taxawaat suñ diggante ak iyaaka naabudu jot na kat liñ koy wax bëri na de te wax dëgg yàlla ni ko waxee defee wuñ ko ni te bu seet ñu ngi koy wax wax loo xam ne nag maanaam defuloo ko lu luñ koy tuddee mooy wax lu du dëgg ci rafetal wax lu du dëgg la kii wax lum dul def nuñ koy tuddee ñu ne mooy koo xam ne waxkatu lum dul def la ma bi maanaa waxkatu lu du dëgg la waxkatu lu du dëgg la ak koo mën a doon nag comme li ngay wax doo ko def doo waxkatu dëgg loolu de moo tax ma ne ñu taxaw fa xoolaat ci suñ bopp ñu ñëpp nag ñu ngi naan yow dongu na abudu la ñuy jaamu ci def lépp loo digle bàyyi loo tere waaw léegi nag ñun ñii ma waxoon commencé ko ci man mii di baykat bi di sàmmkat bi <coughs> jàpp ci sëñ bee nga xam ne commerçant la ak sëñ bee nga xam ne commerçant la ak sëñ bee nga xam ne commerçant la ak sëñ bee commerçant yi kenn xaw nañ fi bëri ak sëñ bee nga xam ne jàngalekat la ak sëñ bii nga xam ne moom itam ab ab nu la bu ngi liggéey ci presse bi ab journaliste la di toxal ba ci gàttal ñu topp ko ba ca gouverneur ca këram nga dina lagg dem pale fekk ko fa président ma président ñun ñëpp de lii la doy lii la doy wax iyaaka naabudu yow dong la ñuy jaamu ci def li nga digle bàyyi li tere waaw ñun ñii ñëpp nag ma ne nañ waxaat ak suñ bopp waay yàlla digalum ñu woon nañu atte euh, bu dul sama atte leen ko ah kay suñ xëyee ne ko naa bu na'budu neewuñ ko atte bu dul sama atte ba nañ ko ah kay wëlbatiku dem atte woo beneen atte lañuy wax lan la moo tax lii nu nuy naxee naan ñu ay nangam ak nangam euh, jox leen kisra lam moom jox yàlla lam moom dañ ñoo bëgg a def ay waxkati lu dul dëgg rek loolu dong lañ namm ci ñun dañ ñoo bëgg a def ñoo xam ne lañuy wax du dëgg saa yu wax ko tusbaar ñu wax ko timis ñu wax ko waxaat ko gée ñu wax ko waxaat ko fajar ñu wax ko waxaat ko ba pare nag benn waaye taxaw fee naan ñu waaw dee leen ko wax ak seen borom bu ngeen jàkkaarloog moom rek te naan ko loo ñu digal jàng ca loo ñu tere ba nañ ko su ngeen paree nag ñëw man ma jox leen man mii di César ay ndigle ki tere ngeen dem doxalal ma ko nag ca ca ca tere ba bu ngeen ma koy doxalal nag bu leen xoolati yàlla mais ngeen doon jàkkaarloo ci jàkka ja bëgg na lii wala bëggul lii man bëgg naa rek ngeen di xool moo tax César def nañu ay waxkati lu du dëgg waaw yàlla ñu yàlla musal ci César César amu fi dara César moomu fi dara César ak sàmmkat beeg man baykat bi ñoo yem César nag turu buur la bi maanaa ki ñuy tuddee buur ak sàmmkat beeg baykat bii di Aliou Ndao ñoo yem kenn bindut fi boppam kenn amu fi dara kenn moomu fi dara ki bind kenn la ci moom kenn la moo moom lépp ndiglem dong nga walaabal te bis bu seet ñu wax ko fukki yoon ak juróom-ñaar naan ko sa ndigal rek sa tere rek wal ba ti ko indi ay ndigal yu bees ak tere yu bees dandal yu yàlla yi sànni ana iyyaka na'budu moo tax ma ne ndax doytoon ñu firi Fatiha rek taxaw ci jéem koo jéem koo jëfee suñ paree door a jàll saxaaba yi noonu lañ doon def saxaaba ya bañ waxee ne na na'budu kenn ci ñoom nekkatu fa damay jéem a garde digal wala tere déedéet dañ jël lépp delloo ko seen borom subhanahu wa taala suñ borom jox ko si kenn si kilifa gu màgg ga rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lu mu digle noonu la lu mu teree ñu bàyyi loolay am kilifa loolay amub yar dëgg-dëgg ñoo amoon kilifa gaa yooyu ñoo amoon kilifa gaa yooyu ñoo amoonub yar nekkoon ay boroomi kër am ci ñoo xam ne daanaka ñoo fare nañ sax mag yonentu bi sallallahu alayhi wa gis nga ko ci mel ni xamsatu moo ko magoon tuuti waaye ndigleem rek lañ doon déglu mukk kenn amatu ca digal kenn amatu ca kàddu martaba boo mënoon a takk tekki nga ko sànni suñ borom ne leen eey yéen ñooñu dee leen séq ak yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam sami'na wa ata'na ngeen séq moom déglu leen ko buy wax bu waxee ba noppi ne leen nocc ca jaar ca lam leen wax moo tax ñoom bañ ne iyyaka na'budu xëccootuñu ndigal xëccootuñu ndigal de ak ci tere mukk ñun nag tey dañ naan ko iyyaka na'budu wëlbatiku ne ko yàlla amatoo fi kàddu iyyaka na'budu wëlbatiku waat ne ko ah ñun nag li ñuy doxal nag moom yàlla ñun sa yoon nekkul ci sa diina ji sa yoon sunu yoon nekkul ci sa diina ci ndax li ñuy doxal bokkul ak sa diina ji iyyaka na'budu jooju du dëgg iyyaka na'budu jooju du dëgg de suñ borom soxlawu ko de iyaaka naabudu mooy ju mel ni ji yonent bi waxoon sallallahu alayhi wa nga xam ne ba mu ne koo iyaaka naabudu yow dong la ñuy jaamu ci def li ngay digle bàyyi li ngay tere ñemeetut caarax ndigle boppam yow nag nga naan iyaaka naabudu tey daganal sàngara iyaaka naabudu tey daganal njaalo iyaaka naabudu di daganal ngóor jigéen iyaaka naabudu di daganal gépp xeetu mooy yàlla iyaaka naabudu sa système financier bancaire nga tabax ko ci kaw ribaa intérêt ana iyyaka na'budu hmm. kon formule bi ni waxe waxee fii ne ko iyyaka yow képp dongu dongu dongu na'budu la ñuy jaamu ci def li nga bëgg bàyyi li nga tere bàyyi li nga tere loolu la al xusuusiyatu al ibaratu huna tufiidu alxusuusiyata bu la neexee itam nga ne tufiidu taxsiis waxin wii li muy tekki mooy jagleel mbir ma lépp ka ngay waxal bi maanaa ndigleeg ordre buñ wax sax ndigle ndax ndigle buñ ko waxee day mel ni ñu bari sax dañ koy réere waaye nañuy wax l'ordre l'ordre moom fi mu ne ñëpp xam nañ ko ñëpp ngi naan l'ordre public nouvel ordre mondial ma ne yooyu day dañoo ñëw pour jëlee fi l'ordre divin de l'ordre naabudu l'ordre la ak interdit yow dong la ñuy jëfee say ordre lu nga ko wax de bu boobaa nee nga dootuma ko jëlee feneen seetal nag li nga wax la ilaha illallah ah dog nga mbir ma de mu nga baax na fii nag ngay gisee su boobaa boo ne iyyaka na'budu ma wax ko ñun ñëpp ñu wax ko dëggu ca yoon ñun ñëpp a yemoo ci kanam ñun ñëpp yemoo ci kanam yoon kenn dootu am kattanul mën a jalgati yoon ndax koo mën a doon boo bëggee jalgati yoon ñi ko séqal taxaw léegi baykat baay taxaw ne la déedéet du li comme dañ ko doon waxee euh, Eh, Omar Omar ibn al-Khattab ak ñoom Abu Bakr ni Siddiq la waaye ñoom it kat noonu lañ doon jëflante ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi da daan wax mbir ñu ñëw ne ko waaw lii nga wax ndax wax yoo ci wàcc wala sa xalaatu bopp la bu ne leen wax yoo ci wàcc ñu bokk doxal amul amul discuter amul discussion bu leen nee sama xel ah fii de dama fi doon wax rek ne jàpp ne nii la sama xalaatu bopp ñu ne ko kon nag bàyyi ñu itam ñu xelaat bokk ak yow. wax tax gis nga keroog xaswatu badr fi mu leen njëkkoon a placé biñ ñëwee laaj ko laaj bu demee noonu mu ne leen ah sama xalaat sama stratégie rek laa laa tëral de gaa yi ne déedéet kon nag ñëwal nii ñoom ñoom miqdaad ibnul aswad dañu bëggoon nga ñëwee nii fii la baaxee mu bàyyi fam fam fam naroon a eh, ragale jullit ñi sàppa ya dem fa ko gaa yi wax ndax xam nañ ne foofu mooy place bu stratégique doomu aadama yëpp yemoo iyaaka naabudu téere bi nga xam ne moo ñuy yemale alquran lañ koy tuddee su boobaa da nga koy jàng obligatoirement xam ko mokkal gi nag ñëpp mënuñ ko waaye obligatoirement moom da nga koy xam bu sa doom di judd rek ñooy la farata la nga jàngal ko réew mu mel noonu mooy état de droit ndax droit ba ñëpp koy jàng xam ko waaw droit ba ñëpp koy jàng xam ko boo koy salfaañee ñëpp am sañ-sañu taxaw contesté la te it euh, doxali wu mel noonu ci iyaaka naabudu ki taxaw ci minbar bi naan iy iyaaka naabudu ab président lay doon walla ab gouverneur wala ab maire wala ministre kooku dootul am possibilité mën a làqu nit ñi kenn dootu ko gis déedéet waxtu yi juróom ñoo koy imposé muy ñëw ci exposé wu ci kanam nit ñi juróom yoon par vingt quatre heures nit ñi mën na am seeni xalaat di ko ko wax luñ gis lu doxul ñu àggee ko ko ordre foofu lañ koy respecté moo tax gis nga Omar ca soxna sa ba mu bëggee jël ay euh, ay ay ay ay décret ci wàllu sëy yéeg euh, nu mu euh, pen yi can yi ne nañu woyofal can yi bu can paaseeti nangam seen soxna jóg ne ko Omar foogoon naa ne sag dégg fiq yaatu na lool waaye yow jigéen ñee la raw Omar ne ko lu tax wax loolu mu ne ko suñ borom daf ne wa in aradtum istibdaala zawjin makaana zawjin wa aataytum ixdaahunna qintaara fala taaxudu minhu shay'a suñ borom ne bu ngeen leen joxoon bëri góob or wala bëri góob xaalis xaalisu ngurdu xam nga loolu ay milliards la suñ borom ne can mën na dem ba foofa yow nga ñëw bëgg a tënk can yi ci fu la neex Omar lu mu wax te booba kan mooy amirul muminin ñu bokk ñu bàyyi xel loolu moo nekk ci minbar bi di xutba di amirul muminin bi ma naa taxaw taxawaay boo xam ne sut na fuuf bu président de la république ndax amirul muminin jamono booba lam jiite woon nekkutoon benn réew bu ndaw bu simple comme Sénégal empire la jiite woon empire empire al imbratoria empire boo xam ne ñëw na ba Afrique dugg na ba Europe law daanaka jeexal asi empire bu mel noonu la Omar jiite woon soxna sa jóg taxaw ak moom ci saa si ak moom foofu président dañuy wax ak moom ci minbar xaw ma woon du fi am moo tax gis nga keroog ke ñaari morceau ya ba mu solo eh, ndobinu ndobinu mooy ñaari morceau yoo xam ne yëpp niroo ci benn piis te piis ba bañ koy joxe ci biir dëkk ba dañoo waxoon ne na ci ñëpp yemoon kenn ku nekk benn la ci amoon Omar am ñaar ba mu jógee di xutba lu ko lu ko Salman al Farisi wax ba mu ne ayyuha naas ittaqullaha e, wa atiu wasmau ragal leen yàlla tey déglu ndigal tey topp ndigal nee ñu salmaan al Farisi dafa jóg ne ko yaa amir almuminin fala sam'a wala taata laka alyawma xatta tubayina lana min ayna atayta bi haadayn athiyaabayn aw kama qaal déglu dégluwuñ li ngay wax topp ñit topp li ngay wax feeg leeraloo ñu foo jëlee sa ñaari mbubb yi te moo nekkoon empereur raw fuuf président kon bu muy wax a ah, sañ-sañ ci opposition ci l'islam l'islam doo nga ko mën a joxe sax pour mën a yem ndax dalay xëcceel ki ngay opposé ci sa kanam ki nga war a opposé da koy xëcceel ci sa kanam obligé ko muy feeñ ci sa kanam juróom yoon par bis loo bëgg a contesté ko ci muy déggal boppam ay ndawam it mu xëcceel la leen ci sa kanam moo tax iyaaka naabudu ji nañ ci liggéeyaat bu baax yow dong lañuy jaamu ci respecter say ordre bàyyi say interdiction ordre yooyu képp mën a doxal asamaan ak suuf mbokk yi ngeen baal ñu waxoon nañu ne li ñuy dese ci waxtu yu bariwul dafa mel ni daanaka àgg na ñu ngi nekkoon ci iyaaka naabudu xam naa foofu dañ koy eh, dañ koy gaw wane rek nag ne njaamu gi ñuy jaamu suñu borom foofu lañ koy tëjee mucc na ci li ñuy tuddee ru'yatul illati wal ma'lul foofu lañ koy tëjee dañuy wax ne doomu aadama lépp lu muy def am na lu mu cay wut am na lu mu cay mhm. lépp lu muy def rek am na lu mu cay wut xale bii di xëy di jàngi di gontu di jàngi bu dee taalibe la bu nekk ca daara ji am na lu mu ci boo ko laajoon lu mu lay wax damaa bëgg xam sama borom mën koo jaamu ëllëg mu mën koo jàmm xam fu may jaar bu dee ci école ba lu mu lay wax damaa bëgg ma itam ëllëg ma bokk ci responsable yi nga xam ne eh, dañuy amas tuut di fas di fecc maçon bi xëy suba romb la yoru eh, eh, turélam di ma ngay liggéey ak peelam sëñ bi lu la tax di xëy dama damaa bëgg damay wuti dépasse loolu la lay wax sax damay wuti dépasse commerçant bi danaa damay wuti dépasse ku moo ku ma danaa dama am lu may wuti xëy boo gis borom di xëy am na lu mu cay wuti ba mu des yàlla yàlla képp mooy koo xam ne la muy def ak la mu ñuy def loo benn intérêt nekk lu ko ca benn intérêt nekk lu ko ca moo tax iyyaka na'budu ji mu ñu tëralal muy yoonu njaamu yàlla subhanahu wa taala njëriñ la ci ñun dongu lay dellusi loolu mooy njaamu kon njaamu noonu bët boobu lañ ko war a xoolee njaamu mooy teg ci jaar ci yoon woo xam ne kala cay jaarloo benn njëriñam nekkal ko ca loolu benn la ñaareel bi jaamu mooy jaar ci yoon woo xam ne kala cay jaarloo dalaa garanti lépp loo soxla ci àdduna seetlu loolu rek li nga soxla lépp garantil na la ko tegal la ko loolu yor moo la ko jox laa ilaha illallah ah loolu mooy njaam li nga yor yëpp moo la ko jox ci gàttal waaw ki nga xam ne li nga yor yëpp moo la ko jox waaye waaye kooku bu ne laa jaaral fii xam nga ne bëgg na la de wallahi fam la jaarloo sa yenu jëriñ la keneen ta nga xam ne nag moom ku tëleel comme yow di mbindeef comme yow jëw nag ne la eh, foofu la sa borom bi la jox lépp jox moo la jox lépp jox ma lépp waaye fi la jaar la bu fi jaar kaay ñu ànd jaar fii yow la bëgg a jëriñoo moytu ko am na lum nar ci yow lu bokkut ak li sa borom nar ci yow lim nar ci yow nag bu sottee mooy li la sa borom joxoon ci xeetu teraanga yëpp dana ko jël moom def ci poosam moo tax ndogaan yooyu nañ leen di xàmmee ñooy li ñu tuddee ay ndogaan ay sawaarif sawaarif mooy ñoo xam ne suñ borom danaan jaam ñi fii la jaar leen nii ñu daw leen ne ne ah du foofu de kaay leen fii moo gën a baax de ay ndogaan lañ yal nañu yàlla musal ci ñoom kon foofu la ñuy gawee iyaaka naabudu tey incha allahu bu ëllëgee ñu continuer waat اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام وسيء الأسقام اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والطاعون والغلاء اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله فافا تيفي